mu ñëw seet si liggéeyu lislaam bu rëy bi ñu tegoon ci sa loxo te biñ koy door mu ñëwoon fi e, ñëwoon xool si ko biñ demee ba àgg ci cottitali it ba jàpp bis biñ ko war a daloo it mu ñëwaat fi e, nemmeeku si ko ginnaaw bi mu ci tàmbulee def ay waxtaanam tàmbuli koo béggee ni nga xamante ne noonu la ko jullit yëpp di bégee waaye nag e, lu toll nii wërta xew ci réew ñu bàyyi ba bis bañ koy daloo mu ñëw yem ceeg ñëpp loolooy jéego bu njëkk bi beneen bi ci des nag mooy am mbégte lool ci fekk la fi nga doon ko laxasaayu ànd ak euh, liggéey bi ñi nga xam ne ñoo ko yor di dugg fépp di xool euh, lenn lu ne ni ñu koy defee mu ñëw sant la ci bu baax gërëm la ci ñaanal la ci rafetlu lool liggéey bi ndax léegi rek bi muy wax mi ngi wax ne lenn lu ne buñ ko gisee li ëpp qualité ci àdduna lay doon te itam lu ñu tànn la ci biir tànneef yu baax ya indi ko moo xam muy karo moo xam muy décoration moo xam lu mën di doon loolu nag li muy tegtale mooy li nga wax léegi ci ci Sëriñ Tuubaa kene eh, moom lenn rek la fonk lenn rek la am mooy jaamu yàlla lenn rek la am lu baax lu baax lu mas amit borom bi subhaanahu wa taala la ko jox moo tax bi la tànnee fi jamono toll dénk la liggéey bu toll nii nga liggéey ko liggéey bu méngook ni ko jamono soxlaa nii jullit yépp amee nañ la ci njukkal loolu moo tax mu ñëw tey moom itam njukkal si la ñëw sant si la ci eh, jaajëfal la ci ñaan borom bi defal la ci ak pay defal la ci yokkute ba yaakaar yi nga xam ne moom la kilifa yi amoon teg ko ci sa loxo yaakaar jooju gën a dëgër mu nekk sagub murit yëpp di sagub jullit yëpp ndax képp ku fi ñëw rek bég na ci taxawaay bi nga xam ne moom la ci am loolu lañ ñëwoon dañ ko ubbilee oustaz jox ko ay kàddu yi nga xam ne moom la ciy toftal insha allah alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin xam naa kàddu yi du du bari ndax li nga wax daanaka mu ne su ko weesu waaye yëkkati ko ngir ñëpp yëg ne bég nañu mbégte moo xam ne keroog bi nu koy waxtaanee mag suñ mbàkkee mooy barab bii daa mel ni bi ñu rëdd dakaar li tax kenn dëkku fi benn usine nekku fi garage su mécanicien nekku fi du tôlier <laughs> ah te jege dëkk bi nag lool asalem nekk nii mel ni daal affaire bii la doon xaar sëñ Mbàkke mu ñëw fi jekk ci lool fees ko nag am na noon boo ko ko defee woon côté bu ne dana des desug mbooy xaw ma nag <laughs> dafa am benn bis benn ujaaj ne ma waaw jumaa yonent bii ay nit a ko rëdd ma ne ko déedéet mu ne ma waaw kay maa ngi door a am réponse daane ma ko ko rëdd ma ne ko malaaka yi mu mu xam waaye rëdd wii it <laughs> rëdd wii sëriñ bi yàlla na la yàlla fay barkeel li des ci sa gi lépp te li des yàlla na ëpp li weesu ànd ak wér-gu-yaram lii ñëpp nga ko defal lii ñëpp nga ko defal te it wax naa la sànq bi may dugg ci biir bunt ba ma xool gis fa laay ji wax ak nit ñi hmm? bunt boo dugg ci biir it tën ci kaw gis fa laay ji wax ak nit ñi noonu lañ ko toppale la nga xam ne kon yëf yi benn joxoñ la bu am solo ci joxoñu mag ñi rawatina jox maam Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ndax lu ne wax na ko ci xasaayitam yi waaye wax naa la keroog sëñ Mbàkke ida zakatu dalikal mabita mabit boo bii moom mi ci dakaar lii rek may nekkum payam ida zakatu dalikal mabita mabit boobu hmm. lii rek kay fayam lii rek ay fayam des na leneen nag ndax ca ca jaawartu hmm. ñett yam joxoñoon hmm. lii ci benn joxoñ ba lii ab joxoñ la ca ñetti joxoñ ya ñetti joxoñ yooya lii benn joxoñ la ca biir ñetti joxoñ yooyee day waxi mag nag moo tax. Hmm, hmm, hmm. <laughs> du neex a tas. waaw day waxi mag. moo tax du neex a tas. waaye daal gudd gàtt mooy. nun day bëgg nañ ci lool. yaakaar naa ni it ñëpp ci bëgg. ñi koy gis di fi romb bëgg nañ ci. waaye ku dugg ci biir gën ci bëgg. ndax ruq boo dugg. ñu wax la la fay nekk. bureau yaa ngi fi. bi jullikaayu góor ñaa ngi fi jullikaayu jigéen ñi duggukaayu handicapé yi ah euh, studio yi lépp a ngi ci biir caméra surveillance yi ah signal yi maanaam daal li jamono laaj def nañ ko fii bëgguma guddal waaye daal maa ngi wane sama mbégte di ko wanee sama mbégtal sama àndandoo bii di sëriñ Mbàkke di sunu xarit bii di Ahmed ànd nañ fi tukki ñaari yoon benn ba ña nga jëmoon Turquie waaw ànd nañ fi tukki ba am solo waaw yàlla na yàlla gën koo sàmm gën noo sàmm defal ñu tawfiix yàlla nañ di ci julli di julli di julli di julli ba ñu naan diw moom lañuy ñuy puus nee ci puus puus bee te lu ñu fi def nag ñaan ko fi yàlla na ko yàlla nangu lu ñu fi julli yàlla na ko yàlla nangu tabaarakallaahu jërëjëf yi daal moo doon kàddu yu gudd gàtt salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.